parti bi yéen ëppalewu leen bi parti bi juddoo yagul donc euh, parti bi judo pratiquement en quatre ans ñu jël pouvoir bi euh, ce qui fait que effectivement euh, dina am ñoo xamni ne nii boddante dina ci am mais de de de de tout le temps aussi lolu amna ci parti yeb té amna nañu yaakaar ne président su euh ku ko bëgg jappalé jàppale da nga ko wara a da nga ko wara déglu euh xiro yeeg ngaay yooyu wara war wara dak parce que tout simplement réew mi ñu bëgg mu dox. te président Macky Sall ku ko jàppale ku ko accompagner ku ko dimbale ci réew mi nu mu doxee nu mu baaxee donc la boo duñu kenn si suñu kenn mais aussi ku ñëw tamit na nga nangu ne am na ñu fi nekkoon d'abord aussi euh, su kenn nag da ngay ñëw ne euh, ñi fi nekkoon duñu dara wala tekkuñu dara wala xamuñu politique ba en quatre ans quand même ñoo ñoo jël pouvoir bi. Euh, am nañ xiloo ngaayoo comme lii fi xew rek quoi mais ba tey président Macky Sall diaspora bi moom moo dem wuti diaspora. amul kenn ku indil président Macky Sall comme militant non mom moo dem yéen xam ngeen ko d'ailleurs temps chaque année dina def deux mois yo xam euh, comme ni muy wër Sénégal dina ko wër diaspora man ànd naa ak partout dans tous les continents té ñoñu mom la ñoñu ñoo ko bëggal seen bopp moom aussi mu bëgg leen considérer comme des Sénégalais euh, ce qui fait que diaspora bi ga amna problème ga mais moins que fi deug deug moins que fi nak mom